kor weeru koor kër nugum nugum mi weeru koor siru man musuma gis lu mel nii kër nugum nugum nugum mi tër nugum nugum tër nugum nugum mi. Oh, looy def nii. yow nga war a jàng réviser say leçon nga nga topp yi naan damay joué. sëñ Saliou man kilifa laa ci dëkk bii ma nekk muy quartier bi. dafa am comportement booy wane ba nga war a roy si man parce que dafa am foo xam ne waa quartier bi dañ ma faa teg waxuma la waa quartier bi sax mais àdduna moo ma fa teg kon loolu il faut nga ciy bàyyi xel pour màggaale ko day refuser réviser say leçon ah, xanaa bëggoo doon dara ëllëg kon day réviser say leçons. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. na def waay kilifa bi. maa ngi nii rek yaa ngi si jàmm. incha allah lu bari barke. alhamdulilah. alhamdulilah na def waay. ñoo ngi fi rek si jàmm baax. barikàlla na def waay. barikàlla alhamdulilah. barikàlla si jàmm baax baax. barikàlla ak seen. sëñ Saalum dama si après ma kii rek naa la woo. te nga réviser say leçons. waaw déedéet révisé waay. téléphone bi na nga ko teg fële. déedéet révisé. gone yi kenn mu ne tàggale koog téléphone. non man man damaa jommi. te doon refusé mu kii refusé mu ko dem mu. école ba sax bu ñuy dem dañuy yóbbaale seen téléphone. yii gone léegi kay moom xaw ma nu koy waxee ne le tec technologique. ci la technologie technologie ci la ci la ñuy yëngu duñ ko baax. ci la ñu nekk. technologie bi ci la xale yi di nekk talatum ah, jàng talatum dara toog seen téléphone. kii ma ne sa doom la. ah sama doom la kay yaa ngi ko fi fekk. ah man kat <laughs> marque yi da bokkul dara <laughs> xanaa yaayam tubaab la. non yaayam naar la. ah loolu la moo tax mu xees nga ñuul <laughs> a jekk ba xam ne kay moom moom moom du l'origine moom. yow l'origine moom du l'origine. non origine la sax. ah, ah. origine loolu la ah, kay. <laughs> xam nga tey jii. Ah. métis dafay am. Hmm. tey ñu ne olof la naar la. waaw dëgg la juree seen doom. loolu la <laughs> yooyu la. waaw walaay nag xam nga li ma fi indi mooy. dama dëkk ci koñ bi. waaw. xam naa miinoo ma waaye bi may laajte lan ma yebal ne ma yaay chef de quartier bi yàgg naa la wër na. ak singa waaw ndax dama ne fii ci kër cheikh abdou nugum nugum waaw nugum maa ngi dégg ko bari bari bari coow lool sa su xuloo xeex jàppal samba samba bàyyi demba coow li mel ni tuddee àll ci kër gi kenn amul jàmm kenn amul salaam suñu dëkkandoo yi nelawutum guddi nelawutum bëccëg coow guddi coow bëccëg ma ne nag nagam ci koñ bi laa dëkk te man ëllëg bëgg naa fee doon dara ma ngi naa wër sif ci kaati gis ko wax ko ko mu ñëw lijjanti loolu ndax suñ dëkkandooy son na de euh, dogguma la sax parce que loolu dégg naa ko loolu agsi na nga si man jot naa si mais nag comme que yow mi nga xam ne yaay ndey mbilit sa biir kër gi dëgg sa biir kër ga yaa ñëw indil ma ko xam nga nooy def da àgg ba kër ga maa ngi topp si say tànk maa ngi fay agsi léegi boo yeexee mook jabar ji kenn ki day lay morom ci doo am paaka la ñuy génnee yow koy àgga rek te nag naa la xamal leen boo àggee melal ni gisante wu ñu yëgante wu ñu. man kese. loolu dana kilifa gi ah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa jaaxal quoi. nekk ci koñ man ni ku moom koñ ba. sonal nit ñi wét surtout ci weeru koor. wolof Njaay day faral di wax ni kër goo gis. am na lu koy yëngal ki yëngal réew mi yëngal kër yi jeeg yi dal di koy bëgg di mos xam la mu saf kakama ca ka xam boo ko mosut doo ko xam baax lool ci góor gu tëlee baa góor gu gaaw a àgg yow mi xeeb sa awra lool bëgg mu toll nu la neex jëfandikool mos xam ba si yow mi nga xam ni yaa am hémorroïde interne wala externe ndoxub siti sono la lool ma ni njàkk rek jaaxle jeex na ginnaaw ba mos xam ñëwee ci mim réew ngir nga jëfandikoo produit bi di mos xam lu yomb la tàngalal sa ndox ba mu tàng café ba meew jël ben kuddu ne ko ci pëy guddi gi yëpp yaay doon seef kër gi di neex lo wax ñu ne waaw bolé ko nga ànd ak wér gu yaram gu mucc ay ngir nga am si lu yomb la gawal gaaw seeti Sëriñ fallu borom mos xam mi ko daal di ndax produit bu efficace amul ben effet secondaire numéro de téléphone 78 165 05 78 165 05 ak mos xam xamne mom rek lañu top topp xam nañ ko. wa duñ dem ci sa waja kan. borom kàddu mom Mamadou Lamine Baram Ndeye. wa <laughs> borom arène ji. kot <laughs> ka yaago xam rek kot. ah mom Mamadou Lamine kenn du mom Mamadou Lamine do bu buy joxe day gëmm moo tax <laughs> danaan loo daj muy sa wërsëg. dëgg la ngay def ni loo daj muy sa wërsëg. nan ko seeti ci laylatul lattalu gi. man na ko alaykum waaleykum asalaam. bisimilah. waaleykum salaam. waaw ah, sëñ bi. waaw eh, ah, incha ah, allah waaw man na ngi lay ziar baax sax. sant la. Guèye la li nga sol rafet na lool. li nga xotti de. doy na maa ngi fi jàmm ana soxna si. waaw soxna si de dafa génn waaye ñun boo na fekkee mel na ni fekk nga ko fi. su ma sañoon nag. képp koo xam ne yaa ngi yeewu si kër gi rek lii ma indi da koy fekk. alhamdulilah ah, ah waaye ñun buñ ci jotee mën nañ leen a jox seen wàll. xam nga sëñ bi. ñu ngi lay dalal. Uh-huh. di la masawu coono. di la siyaar di la jox sa wàccuwaay. Uh-huh. kër gi. jëm ji mako yëlif moy borom kër dëgg la dëgg la man mi dama xarit sama doomu nday mhm. man la baye la kër gi moy njëkk li man may lepp fi ni buñ fi dé joxé ay teranga la ah. ko bu tut bi la koy nango jox ko ma séddul nga fan dëgg wa baax na afm ah, de kon ko soxna ci nekk fi te ma ñoon mu tew te bu ngeen di genn mom ngeen di baye ci kër gi wa kon bu ñëwé ngeen jotali ko li ma indi wa mom kay ñoom ñëpp dara jël seen wàll moom danañ ko ambilaa ba ñëpp wi ñu nekk ban weer la doy na weer wi weer wi nag. ramadaan waaw sëxru ramadaan. sëxru waaw sëxru la xam ngeen lan moo tax ma laaj leen ah. ko. Mhm, bëgg nañ koo xam kay. dafa am loo xam ne dama koy dégg si kër gi mooy ko mayatu leen kenn jàmm ku woor du mën a noppaliku dégg naa da di tànkal nit ñi suba di leen tànqal bëccëg di leen tànqal guddi te noo ñàkk ci weeru koor. àq dafa diis. Mhm. te gis na torop torop torop torop deug ngeen man ni ku mom koñ bi hmm. ben momu len koñ bi la koñ bi dafa am borom hmm. da ngeen fe deug am seen yi dëkkandoo kon hmm. amna ci lo xamne tay ji wan ngeen ko moytu seen bop deug la deug la xam naa nag daa mel nag noo fàtte présenté yaay kan xa yow ab imaam ngaam xutbu samaan ngaam walli wóom xam nga ñëw rek bëgg noo dolli nii te xamuñu yaw gan loolu itam nag quartier borom koñ bi ah chef ah, ah, nga xam ne ceeb yeeg bu ñëwee yaa koy sédd ñenn séddalewuma ceeb séddalewuma ceeb de ah, maanaam li ngeen nekk si koñ bi loolu moo ma indi perturbation bi ngeen nekk si biir koñ bi moom a indi waaye loolu nag day ma leen di xamal ne koñ bi moomu leen ko dëgg la looloo ma indi voilà waaw léegi du du baax tamit nga wax nu lii nga nu wax ni noonu la nekkee ci koñ bi ku la ko wax yow ndax yow xam nga fanaanoo ci kër gi. non xam ah. nga nopp dafa amul ku biir. nugum nga baal man chef de quartier la xaw ma chef de xaw ma chef de village. la bi ma ko séenee muy ñëw pour man sax day. indi teraanga pour man sax bàyyi ji si laa ko yónni. bàyyi allah pour man moo ko yónni chef de quartier. yow yaay chef de quartier bi waaye ñun ñoo moom suñu kër. ko yilif de. bu nu neexee kër gi la nii na di falax falax def lu saf waaw bu kenn moomu ko. kenn moomu ko de. moomoo ñu. Mhm. ku la man di wax ak koo man di déggee ñoo tay lu nu di def moom moo ñu jëndoon. dëgg la yaa ngi dégg sa kër nga moom. da ngay a yem sa kër munoo yem sa kër nga xam nooy def. amul terminé problème aywa waay waay chef de quartier yu njëkk yi ak léegi ça fait waaye yow yàlla na doon safekaat nag sëñ bi. nga xam ne ñun parewul li ma leen di xamal mooy ka tër leen fii wulli leen ba ngeen nooy nekk. foofu jum nga fi. non du ma jum. xanaa may ma may ma toogaay bariwul da nga may déglu rek sama toogaay bariwul et puis aw ma lu may laneen lu ma ciy tega comprendre wax naa leen li ma leen di wax mënu leen lagi dégg mm-hmm. di ngeen ma gis baa ngeen jot ma Sénégal waaye del seetu xanaa xoolal ni nga toll ah Sénégal de ceene woo nag ah déedéet waaw li ma dugg ci dóorante ak ñoom ni ko kii chef de quartier mi ku neex xanaa technique la ñuy dóoree waaye du fi mu nii. waaye nag waa koñ bi mere naa leen de. alors de quartier duñ xool ku normal ku ñu dem xool ci salle de musculation yi. a waaw koo xamante ni boo ko gëddee mu gëdd la. waaw sax waaye kii. waaye kii ñeme naa ko may wër ndoom di wuy ko waxtaanee te ci lan lii mu ñëw fii non lii liggéeyam yokku fan la. waaw loolu kay wéranteetuma ko loolu ba mu ne ba mu. moo fa dem. fenn kat la kër gii lu fi génn yokk la lu fi dugg yokk la muy indi muy yóbbu koñ bi moom ñëpp xam nañ yokk dañ ko tegal ñun doo nga desoon ci moom. waaye sax jot na xam nga ne jot waaye li te ko kan yokk waaw ah jabaay nag yow ndekete yow yokk nga faral de yokk boo nga dugalante yaa doole solub xaftaaram ñëw si si sa nekkaat la ma il est absent sa ah war ngaa xam lu mu seqal war ngaa bi de moom loolu nga rek soxna ah war nga na war de lu ne lay def lu ne lay daj lu ne lay wax ko You Inugum